mooy dañ fay nekk rek pour wàllu pomper dëkk bi comme niñ koy waxee wàññi yooyu ci dëkk bi bu ñu balee nettoyer euh, wàññi ndox mi ci ci caniveau yi curé caniveau yi defar ba nga xam ne Ziguinchor cette année amul inondation euh, bu ñu jógee ci loolu ñu gis ne yooyu bëri nañ ci dëkk bi te yooyu ku nekk xam nga lu muy indi mooy feebar mooy sibiru bi te bare ci dëkk bi ñu ne nag jot na nag ñu pomper dëkk bi wàññi yooyu bu ko défé nak mettre à l'aise la population euh, ñëpp mën a am wérgu yaram. waaw jodi ñu concerné tay moy fu ñu taxaw ni tay Santhiaba rond un garage jël Gumel Jéefay kandé Djibok euh Néma 2 mu jël euh, kadior ak euh, Tilène ak alwar yoy lañu ñu jël zone boobu lañu ñu jël tey suba aussi ainsi de suite dañuy jëlaat encore benen zone suba. gannaaw ëllëg tam ñu jëlaat euh, beneen zone muy ñetti fan la ñu la ñu la ñu pàcc Ziguinchor euh, ci ñetti fan daal lañu def pàcc boobu lañ ko def quartier yi. suma programme bi commission bi ma yor nii yaakaar naa ñëpp teg nañ seen bët cette année ren ndox mi ni mu bëree bëri amuñu inondation mooy jàmbaar yi ma toogal fii nii ne sama ginnaaw ñoo ànd curé Ziguinchor ba mu set wicc programme boobu bañ ca noppee dañoo dugg ci école yi setal école yi dindi ñax yi wàññi lépp defar ba mu set bu ñu noppee ci loolu ñu dugg ci cimetière yi armeel yi nekk fii ci dëkk bi fii yëpp lañu ñu setal dindi lépp moo waral démb fet ba woon démb macha allah mu jàll ñëpp gi ci seen bopp ñëpp kontaan si tey nag ñu jublu nag wàññi yi ci dëkk bi ci loolu la ñu jublu bu ñu noppee ci lii daañu wàccaata xale yi ndax Ziguinchor ku ne gis nga ko bu tawee ba noppi nu yoon yi di mel dafay bëri ay ñax ak yooyu artères yi mag yooyu la ñu bëgg bu ëllëgee bu weekend bi jotee ñu nettoyer artères yooyu dindi ñax yooyu yëpp ba pare ñu mën a jublu ci yeneen ak yeneen te du tee chaque jour ñu ngi ci luy setal dëkk bi bale ko mbalit mi lijjante lépp lu koy setal tamay ñaan ñëpp jàpp si. saupoudrage boo boo ko déggee c'est juste faire de la poudre pour euh, xeex ci gunóor yi mooy insecte et mouches mooy loolu loo xam ne moo jox feebar donc euh, insectes qui yoo xam ne moo jox la moment am période boo xam ne gis ci bi période tamit day da ngay gis ne pëlu day wàññeeku ñun maladie bu gën a am euh, espace bu sonal paludisme pourquoi parce que day taw taw bu am am ay garab yu euh, comment on le dit en wolof ñax yu bëri donc ba pare am na ndox boo xam ne day taa donc loolu bu bu ko bu ko defee day am euh, ay yoo yu bëri donc yoo yooyu moo ñuy jox feebar euh, fe ñaari fee feebar feebar boo xam ne biir buy daw mouche yi moo ñuy joxe euh, ak paludisme moom yooyu moo ñu moo moo ñu koy jox donc bu ñu defee lii loo xam ne mairie moo ñu ko permetre ñu def ko vraiment nous nous sommes très satisfaits kontaan nañ ci loolu. parce que suñu liguey ci prévention le le le le féetoo donc bo amé lo xamné dañ la ko may pour nga def prévention bi vraiment sante yalla sante mère bi. voilà loolu l'ol toujours dañ koy wax euh, à la population man de bi bu ñuy liggéey day gis les nit yo xamné dañuy curieux mais fu ñuy taxaw ñu bëgg xol pour xam appareil bi lan la mo fa lan mo fa nek nangam ak nangam ñun ñi liguey ci bir produit bobu dañuy masqué on se masque bien pour éviter loolu dugguñu donc kenen ko nit la comme ñun dafa wara masquer wu bala mu suñu appareil bala mu suñu produit donc nous lañu bëgg ñom yépp euh, ño ne yu ñu jël tay ñu ñu ñam yi ñu euh, matériel yi ñom ci sen bop ñu dugg kër pour ñu baña nous ak suñu produit bi vraiment euh, prévention bu ñu bañ a dugg bañ a laal bañ a lekk produit bi. gunge ci initiative bi parce que comme monsieur le maire dafa woote woon Brok euh, ba muy campagne te Brok boobu programme la boo xam ne da koy dérouler durant tout son mandat donc euh, service civique bi dafa nekk aussi euh, service boo xam ne day accompagner le programme te képp koo xam ne dafa fas yéene liggéey dans la commune dañu nekk ak yow rek. waaw ànd ak euh, monsieur Diédiou nga xam ne moo fi représenté service d'hygiène ñu leen di sant bu baax ci seen taxawaay rafet na di sant madame le maire aussi di waxaa monsieur le maire de Ziguinchor taxawaayam aussi rafet na parce que moom moo fi indi bu rog moo tax jeunes yi aussi xam lan mooy euh, liggéeyal sa réew surtout waaw te jeunes yi incha allah dañ ciy dem ba jeex répartition bi waaw répartition bi yaakaar naa madame le maire euh, jaar na ci sànq tey dañuy def mooy fi ñu nekk ni dugg Gumel euh, dugg Gumel ba ba ci biir euh, suba encore ñu daal di jaar Sukku Papaay Péris ak ñefu leen ah. euh, fa joggé le troisième jour ñu daal di dugg HLM Grand Dakar ba Lindiane